asalaamaaleykum waa Alphie Cuisine ziar naa leen sama gars yi ba ñëpp a ngi ci jàmm ah andiwaat naa suppu kànja de bi yoon moom yàpp laa ci def suppu kànja ma def rek benn euh, suppu kànja bu gaaw bu rapide boo xamante ne viande viande dañu laa ci def tey ñoom crevette a ngi ci ñoom sippax bu wow euh, yéet géej yoxos kong fumé lii dem ci suppu kànja yëpp daal. mais daal defuma ci cette fois jën donc euh, tàngal ndox bi sànni ci ndawal bi mu ngoog comme kuy togg supp rek yamale ndox bi xam naa tey moom ndox bi moom xanaa kenn du ma ne dafa ëpp mais man maa bëggul supp kànja bu dang dama amee su ma ko lekkee bu dang dafay xaw a jàpp sama estomac parce que diw bi dafay dafay bëri moo tax daal sama supp kànja dama koy ñulub mu bëri nga xamante ni boo ci lekkee ba pare desit bi da koy congelé donc mi ngoog yàpp bi ak yéet bi dugg na ñu defar nokkos nettitu bi euh, soble euh, kaani deseloon naa tuuti nokkos pour bañ mu yàqu euh, dagg naa tuuti ci kaani bi di jaay jàmbaar noonu te duma lekk kaani ak tomate fraîche donc mixé ko defar benn nokkos bu saf ak laaj laaj baa ci suuf mi ngi ko daal di koy réserver nag de côté kaani tëmbal bi tam mi ngi ñëw su ko defee comme fumée bi raxas nañu tuuti tegee na li bi yoon sama yaay li ma dee bariwul tuuti la ma yóndee kenn nag du xadi jatu GP nga xamante ni moom tax na namatuma Sénégal sama màdd yeeg sama mango yi yëpp euh, jatu GP moo koy indi ñi nekk Espagne daal bëgg ay yóbbantu yu gaaw te wóor su ngeen ma laajee numéro am ci commentaire yi ma jox leen ko mi ngi fee côté Rambla Prime waaw moom day ñëw temps di ñëw heure say say say say bagage du yàqu say bagage day teel a ñëw daal xari daal gàcce ngaa am donc mi ngoog ñu def yoxos bi def euh, crevette bi euh, daal di dëbb nag euh, kànja bi donc dañ ko daggat am na ñoo xamante ni dañ koy dëgg dëgg dëbb ba mu mu sew ba mu mokk am na ñoo xamante ni dañuy préféré sàjj ko tuuti rek pour def ko ci seen suppu kànja nga xam ne da lekk di daj ci kànja donc ndox bi baax na léegi fi mu nekk ni ndawal bi ñor na mën nañu def nokkos bi ngoog kaani tëmbal kaani nag moom moom ci suppu kànja la neex nag moom bala muy neex xaw sax tuuti kaani ñu ngoog ñu daal di mélanger tëjaat bàyyiwaat mu bax tuuti nga xam ne nokkas bi dina dina gën a ñor xeetu laaj beeg yooyu yëpp dañ donc suñu ubbi waatee ñëw def ci kànja bi mi ngoog euh, des fois nga def defar ay recettes yoo xamante ni day xamante ni day nekk suñu ay plat sénégalais mais danga koy defar foog ni ñëpp mën nañ ko mais ba léegi day des parce que suppu kànja moom ku nekk ak noo koy toggee l'essentiel mooy que na bagages yëpp dugg mi ngoo ko lépp ci cin bi la jëm yi yi gën a dëgër yi ñooy njëkk dugg ñu may ko temps mu ñor après ñoom kànja ak ñoom seen nga xamante ni euh, ak diw diwtiir bi ñoom ñooy bu ci dem léegi nag def naa kànja 10 minutes après ma dóor ci tuuti diw mi ngoog yëngal yëngal bu civilisé bi may def crevette bi nag ak confumé bi dafa tëb duggul mais crevette bi ak confumé bi moom laa def au dernier moment nga xamante ni soxlawul muy yàgg trop ci taal bi mi ngoog de sama gars pare na suppu kànja Europe moom boo ci boo koy togg toggal lu bëri wut sa ay sachet congélation daal di koy congelé man fi mu nekk nii sama portion bi dinaa ci mën a añ ñeenti yoon waaw Ricardo wul ci suppu kànja te léew bëgg ko daf may gën a arrangé sax day gën a sakkan bu ko defee nga wut sa ay sachet congelé ko boo nammee suppu kànja rek daal di génne tàngal mi ngoog sama gars yi suppu kànja euh, à la viande dañu tey moom la ñuy euh, andi euh, Alphie Cuisine yàq bi noonu noonu parce que xiif fi mu nekk nii xiif bi dab na ma je vous souhaite une très bonne dégustation n'oubliez pas de partager vidéo yi et puis abonnez-vous si c'est pas encore fait on se donne rendez-vous très bientôt pour une autre recette ci Alphie Cuisine jaajëfal naa leen sama gars yi